asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi nga xam ne yéen a ñuy bàyyi xel ci Argentine TV fépp fu ngeen mën a nekk ci biir réewum senegal wala bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di rafet lu ànd ngeen di ànd ak ñun. tey jii nag ñuy am mbégte ci barab bu sell bi ñu leen di nuyoo muy kër xalifa général des Baye Fall Serigne Cheikh Jëmm Fall waaye ci xew-xew bu am solo boo xamante ne bii fas nañ ci yéene ànd ak yéen ban xew-xew la muy ziar bu am solo boo xamante ne bii. ay liggéey yaa ko ni Serigne Touba mbooloo mu pëseefu moo xamante ne bi saa ne seen i jéego ñi ngi ko jëmale ci liggéeyal Serigne Touba Cheikhul Khadim mu di daayira Touba Argentine bi nga xamante ne bi ñi gërëm bu baax Serigne Assane Baye Fall waaye eh, Serigne eh, moodu seen mi nga xamante ne bi eh, moom moo jiite liggéey bi ñuy fas yéene bëgg a ànd ak yéen muy ziar bu am solo Euh, muy ziar boo xam ne tey ñoom ñëpp bàyyi ko nañ ci réew Argentine fekk itam seen mbokki taalibe nekk fii ci dëkk bu sell bi di Touba wala ci biir Sénégal ak li ko wër ngir ñëw ànd yeesal seen pas-pas seen kóolute ci maam Cheikh Ibrahima Fall euh, muy Serigne Cheikh Jëmu Fall yàlla na fi yàgg lool ci ànd ak wér. Euh, laataa ñuy gën a sori nag daañu dikk ak yéen ci ni nga xamante ne bi noonu lañ yegsee fii ci kër sëriñ bi saafonte muy mbooloo mu am solo moo xamante ne bi gis nañ tamit. Euh, pëstéef bi ñu àndal ak mbégte mi euh, suñu àndee ak yéen ci loolu nag xam ngeen ne euh, dina am kàddu yoo xam ne dañ ko yëkkati kanam sëñ bi danañ ci ñëw ak lenn ci ay interview yoo xamante ne bi mbokki taalibe yi danañ ko def mooy lu am solo rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min xaw xaw qawli mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax ci pàkk bu tedd bu barkeel bi di jiital ci nuyoo bi asaahibul fadila Serigne Touba Serigne Mountakha Bachirou Mbacké di ñaan yàlla sunu borom mu yàgg fi loolu te wér ak njabootu Serigne Touba gépp waaye ñoo ngi ziar baax di nuyu Serigne Cheikh Jëmb Fall ibnu Cheikh Mouhamadul Moustapha Fall ibnu maam Cheikh Ibrahima Fall baabul muri dina di ñaan yàlla sunu borom mu yàgg fi loolu te wér ak njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gépp lim ne yéenee liggéeyal juróom wa yéene koo liggéeyal maamam ju tedd ja mu def ko ci sagoom ci barke Cheikhul Khadim ginnaaw loolu ñoo ngi nuyu rek mboolem kilifa yi fi teew yëpp ak mboolem mbokki jullit yi mbokki taalib fi teew te bàyyi koo fële di Touba Argentine ci njiitul sëriñ Yaxooba Guèye mi nga xamante ne moo jiite fédération sëriñ Touba ba fa nekk ak sëñ Bamba Ñang mi ci wetam ak mboolem daayira boo xam ne yaa ngi bootu ci fédération bi rek ñu ngi lay nuyu ci turu sëñ Assane Ngom mi nga xam ne moo jiite daayira Jësbul Murit Muridina bi nga xam ne moo nekk Touba Argentine ak sëñ Modou Sène mi nga xam ne moo ñoo ànd ci liggéey bi ak sëñ Ibrahima Ngom ak sëñ Modou sëñ Modou Faye ak mbokk yi jógee njaareem yëpp ak mbokk yi jógee Touba yëpp yi teew fii ci kanam sang bu tedd bi ngir jébbal si seenub liggéey ci maam Cheikh Ibrahima Fall Babul dina loolu mooy kàddu yi nga xamante ne eh, mbalam eh, njiitul eh, daayira ba di jëwriñu fédération ñoo xoo bëggee yónni woon nañu ko waaye ci ndigalul sëñ Assane ma nga xamante ne moo jiite jës bul Murit ba fa nekk di daaira ba nga xam ne moo fay liggéeyal maam Cheikh Rafa ci Touba Argentine ak mbooloo mi mu ko àndal ñëpp kon sëriñ bi mbooloo mbooloo moomu ñoo teew fii sa kanam di la jébbal seenub liggéey ci maam Cheikh Ibrahima Fall nin ko baaxoo defee at mu at mu jot kon ñoo ngi ñaan yàlla ci barkeb Serigne Touba ci barkeb maam Cheikh Ibrahima Fall ñu yàgg ko fi indi ay at yu bëree bëri yàgg la fee fekk te ndaje ceeg waq di xawaa ay la si na daamu fii xidmati wa hab lahum maaraamu barkeb Cheikhul Khadim trois millions huit cent vingt-neuf mille trois millions cent vingt-neuf mille bismillah sëñ toll na ci. 3 800 9 000. ma ne addiya ji toll na ci ñetti millions ak téeméeri junni ak juróom-benn fukk ak ñeenti junni. waaw. 800. 3 829 000. 29 waaw 29 000 waaw. juróomi juróomi junni ak ñeenti eh, ak juróomi téeméer. waaw ah, juróomi téeméer waaw. gis nga. Baye jëf mbokk yi ni leen ko waxee woon léegi Alassane Tine TV nekk euh, mu mën ko tudd sax la télévision des grands événements di gërëm bu baax Serigne Gora Seck mi nga xamante ne mooy njiit li waaye Serigne Cheikh Sam mi nga xam ne tey ji moom la ñu àndal ci wàllu reportage bi ñu leen jagleel tey mbokk yi gannaaw gis ngeen nag ñëw geek ni euh, nga xamante ni moo di saafonte bi ak dugg sib taalibe ci njiitul Serigne moot Sène ak ñi nga xam ne ñoom la àndal ñu ziar bu baax Serigne Assane Baye Fall ak mbokk yam nekkal foofu ci Argentine ndax ñii ñëw nañu waaye tamit ñoom ña teewu tamit teewaal nañ lañ leen euh, teewaaleel nañ leen ngir seen pësteef ak euh, taxawaay bu am solo bi nga xamante ne bi ñi ngi koy def ci liggéey bi waaye nag kii teewaayu Serigne bi di Serigne Cheikh Jëmu yàlla na fi yàgg lool ci ànd wér ak mbooloo mi ñu fekk ak mbooloo mi teew itam am na kàddu yu joxlante yu am solo yoo xamante ni bi sëñ Cheikh Samb yaakaar naa ci lool lañuy ànd ak yéen. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ñoo ngi sant yàlla du julli ci yonenteem bu tedd ba di jaajëfal Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasuul di jaaraamal Cheikh Rahim Fall Babul Mouridine di ñaanal jëruñu Cheikh Fall bi toog di sëriñ Cheikh Fall jëmb sama borom guddal fanam te wéral ko te yeggale ay yéeneem ba yéene gi maam ngir liggéeyal maam ju tedd ja Cheikh Ibrahima Fall. ak way juróom bu baax ba Cheikh du Moustapha Fall sama boroom defal ko ba defal ko lu kay njortam ak njabootu seer Fall gépp ñuy ñaanal sëñ Mountakha Mbacké mi jëruñu sëñ Touba tey sama boroom guddalu fanam te wéral ko te defal ko jàmm ba yéene gi mam ngir liggéeyal sëriñ Touba ak sëriñ Bassirou Mbacké boroom defal ko lu defal ko lu kay njortam ak njabootu sëriñ Touba gépp ñoo ngi bëgg a wax nag ci kàddu Cheikh Ibrahima Fall sëriñ Cheikh Fall jëmb bi nga xamee ni mooy daayira Touba Argentine ay mbokki taalibe mbokki Baye Fall ñëw fi daayira bu tudd Jazbul Murit dëkk baa tudd Touba Argentine waaye ñi àndi seen liggéey kat njabootu Cheikh Fall lañu ba tax ñu ne daayira bul Murit sëriñ bi moo ngi leen di jaa jëfal bu baax a baax di leen sant bu baax a baax di leen massawu coono di leen wax ni jaa ngeen jëf jaajëf na ku jëfa ko moom ku jëfut bokku ca moom liggéey bii ngeen jébbal sëriñ bi toll ci trois millions huit cent vingt neuf mille euh, yàlla nawul ñay waaye xeebul picc ku ko neenal lay bañ waaye neenalu leen sëriñ bi xam ngeen ni fii mu toog liggéeyal sëñ Tuubaa rek ko fi bay xam ngeen ni fi mu toog lu mu jox sëriñam bu tedd ba ak ni mu jekkoo liggéey sañ Tuubaa gi rek la bëgg na waxtu bii ngeen ñëw tembe nag ñëw ngeen ci waxtu woo xam ni na ngeen xam ni am ngeen pajub aajo moom ndax li ko def mooy liggéey bi nga xamee ne ñoo ngi koy dëgmal muy tabaski yi bokk na ci li nga xamee ne sëriñ tubaa ci boppam moo woolu maamam fii ci njaarim ne ko Ibra Faal mu ne ko Mbàkke mu ne ko wutal ma ay tabaski waaye lu feeg julliwuñu it bu dara des ci kër ga Cheikh Ibra def lu mu am di ko yónnee ba nu julli it ba noppi la fa des mu barkeeloo ko kon liggéey bii ngeen fi andi na ngeen xam ne ni dana dem ci liggéey sëñ tubaa googee kon loolee tawféex la kon loolee xéwal la kon na ngeen xam ne na ngeen feddaliwaat seen i laxasaay na ngeen gën a góorgóorlu bu baax a baax a baax ndax lii ngeen am li pajub aajo la fekk na fan yëpp sëñ bi ci loolu la ne fii ak joxewul tabaski du am jàmm ndax mooy ndigal li nga xamee ne moo fi sës mu doon ndigal li nga xamee ne dañ ko sosoon ci diggante bi fi sëñ Tuubaa nekkee seerafal ne fi li tax ñu teg ci ne pajub aajo da ngeen ko am mooy dangeen fekk sëñ bi kat mu teg ab bëggam xam ne képp ku fexe ba doon dara ci bëggam sama borom dana faj sa aajo kon am ngeen tawféex na ngeen gën a góorlu gën a feddali seen i laxasaay te xam ne jëf kat su ko yàlla nit koo fi gis muy wër jëfam ñu nangu ko rek la bëgg te seen jëf ji da ngeen xam ne yàlla nangu na ko ndax wa mënoon ngeen ñëw lu jiitu lii wala mënoon ngeen ñëw lu tax waxtu wi jàll waaye da ñëw ci waxtu woo xamee ni waxtu woowee la ko sëriñ bi soxla te na ngeen xam nit lu nu ah, toll yéen a yéen a ko fi njëkk àndal sëñ bi nag ci waxtu wi mu ko soxlaa nag keneen ku ci topp doog cee toppwaat ndax am na ci daayira yu nekk ca France Italie ak fa wër foofu ba Amérique ñooñee ñëpp daan dajale seen ñaq di ko fi andi si waaye nangeen xam ne yéen fi jiitu waaye jiitu gi ngeen jiitu nag sa boroom dana defal taw tawsiix ndax de yéen ngi dalal xelu sëriñ bi donte que nag benn jëf joo xamee ne ñeelut borom lépp waay jëf rek sa bopp nga ko jëfal jëfaloo ko kenn ndax bi ngeen futteekoo di liggéeyal sëriñ beeg léegi gis ngeen seen bopp jàmm gis ngeen ci xéwal gis ngeen ci yokkute yéen a ngi mos te yéen ngi am jàmm yéen ngi am loolu yóbbu ci kër yi yéen a ngi am loolu jox sëriñ bi sëriñ bi nag noonu lay doxalee ka koy liggéeyal sëriñ bi nee na sant na leen bu baax a baax gërëm na leen bu baax a baax xolam seet na ci yéen Baay Faal ya nag nan gën a góorgóorlu nan gën a feddliwaat seen i laxasaay nanu bu nu bu nu tàbbi ci lenn loo xamee dëppawut ak sëriñ bi ab Baay Faal nag daa am loo xamee ne kat moom ca la ne ndax Baay Cerno Sàllub jëbb kat laaj na Cheikh Ibra Fall ne ko Fall lan mooy Baay Faal mu ne ko na mu ne ko Fall mu ne Baay Faal ñett la si kartur yàlla sàmm say cër ak la ngay joxe kon bu ñu demee nan gën a góorgóorlu tubaab ya nga xamee ne ñoom lan fa fekk ñëw ci seenub dëkk nañ leen roy ci seen jikko yu baax te yenn jikko yi nga xam ne ni dëppoowut ak sunub diine nañ ko bàyyi ñoom te it lislaam ci boppam moo nu sant ñuy maslaa waaye li nga xamee ne daal loo xamee ne buñ ko yenn woon andil sëñ bi sëñ bi du ko soxla nañ ko bàyyi ñoom nanu góor góorlu nanu feddli seen laxasaay bu nu tux bu nu naan bu nu dem ci loo xam ne dëppawut ak bëgg sëñ bi loolee suñ ko defee foofee la muy sori sori sëñ baa ngi seen biir dana leen ñoddil ay xéwal dana leen dàqal ay lor kon na ngeen rafetum jort na ngeen dalal seen xel bu baax a baax a baax lii fi ne nag mayewut abalewut sarexewut luy jaay de moo fi ne te yéen a taxaw nag tembe ndax yor ngeen aw njëg te am na loo leen ci dugal lii nag sëriñ bi dana ko teg ci loxoy Cheikh Ibrahima mu teg ko ci loxoy sëñ Touba sëñ bi xolam sedd na ci yéen guy na ngeen gën a feddluwaat seen i laxasaay na ngeen gën a bu baax a baax ñi ngeen fekk ci kër gi gis ngeen melaw yu ñu yor lu baax rek a ne ci ñoom foo daje ak ñoom da nga xam ne ñii ci këru nit ku baax la ñu xëyee kon ñooñee na ngeen góorgóorlu na ngeen feddliwaat seen laxasaay bu baax a baax a baax ndax na ngeen xam ne yéen yoon wi Cheikh Ibra mooy yoon wi dem ci dëkk sëñ Bamba aw yoon nag day set day sell day leer ndax dana tax kat ku ci tàbbi ca yoon bay dem fa ngay dem ca dëkk ba doo réer kon nag nañu góorgóorlu baax feddliwaat seen laxasaay bu baax boo ko defee sëñ bi dana leen defal tawféex jëf ji ngeen andil Cheikh Ibra Fall sëñ Cheikh jëmm nag nangeen ngeen xam ni foo leen jëm na ngeen xam ni sëñ bi sant na leen ci bu baax gërëm na leen ci bu baax xolam sedd na ci yéen bu baax a baax jaa jëf li tax nag ñu koy waxaat mooy bu beneen yoonatee ñu gën koo teelal gi ko gën a yëgal ñu gën ko mu gën mu gën a yaatu ndax jëf ji baax yi dees na ko weer nii ngeen def baax na ndax am na ñooñ yëg siwunu deneen ci mën a jot am na ñooñu amuñuy tànk mooy amu amuñuy këyit am nañu ñoo ngi ci ay xat-xat ba nu yegg si waaye lii bu ñu xamee ni seen jëf fii la yegg si deet nañ def bu ëllëgee ñu feddliwaat seen joxasaay gën a góorgóorlu di ngeen leen demaaleel géew sëriñ baa ngi leen di sant moo ngi leen di gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullah jaa ngeen jëf jaa tàll seen loxo sëriñ bi ñaanal leen sëriñ bi ñaanal leen bu baax a baax buñ fi jógee ñu jërëjën jëf mbokk yi muy lu am solo loo xamante ne bii firndeel na euh, euh, Serigne euh, Cheikh Jëmu Fall pas-pas bi nga xamante ne bii am na ko ci liggéeyal Serigne Touba waaye ci mbooloo mi nga xamante ne bii ñoo bàyyi ko Argentine. waaye xam ngeen ne nag ñi nga xamante ne bii ñoo nekk ci daayira bi itam faw ñu am ñenn ñoo xam ne daañu ci jokkoo ak ñoom ngir ñu feeñal seen yëg-yëg ci liggéey bu am solo bi nga xamante ne bii def nañ ko. Euh, tey fii ci dëkk bu sell bi waaye tey fii ci kër xalifa général des Baye Fall mu di Serigne Cheikh Jëmu Fall kon ñu ànd ak yéen ci lenn ci ay interview yoo xam ne daañu leen ko jagleel. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe ñu ngi leen di jaare bu baax a baax a baax ah, su ngeen gisee jotaay bi rek xam ne maanaam li ko waral mooy ah, ndaje mi nga xam ne moom lañ daje fii tey ci kër Serigne Cheikh Jëmu faal yàlla la fi yàgg lool te wér ngir andiyal andil ko addee addee ji nga xam ne moo jógee fële ci Argentine euh, muy mbokki jullit yi mbokki taalibe bi fa nekk ñoo ko dajale euh, ba mu doon ab lim ñu teg ko ci seen loxo ñun waa mbooloo mi ñu ñëwoon tey ngir andil ko Serigne Cheikh Jëmm Fall ba tax na ñu ànd nag suñ mbokki jëwrin yi nga xam ne euh, ñu ngi nii suñu wet Serigne Modou Faye ak Serigne Dame Cissé ak Serigne Baba Ndiaye mi ngi nii ak Serigne Serigne Tafa Ndiaye Euh, mbooloo moom ñoo àndoon ñoo àndoon tey ngir ànd si liggéey bi ba tax na maanaam euh, jom dañuy jox kàddu gi Serigne Dame Cissé su ko defee lu ci baree bare dina ko leeral waaye ñu ngi fi teew teewe ci turu daayira Jësbul Murit bi nga xam ne moo ëmb Argentine gépp te ka ko jiite doon euh, Serigne Assane Ngom ginnaaw bu nu siyaare Serigne Yankoba gi nga xam ne moo moo fa toogal Serigne Touba kon ñu ngi siyaare si jëwriñ si Assane Ngom jébbal kàddu gi Serigne Dame Cissé su ko defee rek maanaam dina andi ay leeral yu baree bare asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci seydina muhammad salallahu alayhi wa sallam di jaajëfal seexul xadim ñoo ngi dellusiwaat tey fii ci pàkk bu tedd bii rek di pàkkub Serigne Cheikh Jëmb ibnu Cheikh Mouhamadou Moustapha Fall ibnu maam Cheikh Ibrahima Fall baabul muridina di ñaan yàlla sunu borom mu yàgg fi loolu te wér ak mboolem waa kër maam Cheikh Ibrahima gépp Euh, ni ko sëñ Modou seen waxee ñu ngi nuyu ñun àndal ñëpp ci euh, entrevue bi sëñ Modou ak sëñ Modou Faye ak sëñ Moustapha ak sëñ Baba njaay mi nekk sun ginnaaw ñoo ngi leen di nuyu baax di leen jëfal ci yitte ju kawe ju mag jin am tey ak tawféex ju mag ji nga xam ne am nañ ko te mu law ba fépp foo xam ne ab jullit nekk na fa rek ci Touba Argentine ci njiital sëñ ba géey euh, ci moom mi nga xam ne moo jiite fédération ak ñi ko àndal ñëpp sëñ Bamba Niang ak mboolem ndax bu ñu tuddee bi addiya ji mboolem fu daayira nekk ci Arxuraan rek seen addiya ci biir moo tax ñu njëkk a tudd fédération bi ndax fédération bi moo ëmb daayira yëpp moo ëmb jës bul murit it waaw ginnaaw loolu nag fédération bi jës bul murit moom mooy daayira ba nga xam ne ñoo fa nekk di liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall ci njiital sëñ Asan sëñ Asan Ngom kon loolu moo tax ñu jiital ci fédération bi teg ci jëwriñi maam Cheikh Ibrahima Fall sëñ Asan Ngom ci liggéey bi nga xamante ne defal nañ ko Serigne Touba waaye defal nañ ko maam Cheikh Ibrahima Fall mm. waaye tamit la ndax ci kàddu bi rek liñ dégg mooy fi ko fi ko indee rek fi fi la ndax fi ko fi ko sëñ bi soxlaa ndax euh, lépp loo xam ne ñëw na fi rek dana ko teg ci loxob maam Cheikh Ibrahima Fall mu teg ko ci loxob Cheikhul Khadim kon mel na ndax nee na teg nañ adee ji ci loxob dana ko teg ci loxob Cheikhul Khadim loxob Cheikhul Khadim nag mooy Serigne Touba Serigne ñaanal ko yàlla sunu borom mu yàgg fi loolu te wér ak njobootu Serigne Touba gépp liggéey bii nag day liggéey boo xam ne liggéey bi yàlla la boo xam ne ñi ngi ciy soññ suñu bopp di ci soññ mboolem jullit yi nekk Argentine mboolem taalibé Sëñ Tuubaa yi rawatina waa kër maam Cheikh Ibra Fall Jazboul murit ndax lii ab soññee bu mat sëkk la ndax ku déglu waxi jëwrin ji rek da xam ne soññ nanu soññ nañu ñëpp mhm. waxuma la waa kër maam Cheikh Fall waaye murit yëpp la soññ ci liggéeyal Serigne Touba ak liggéeyal maam Cheikh Fall kon ñu gën cee góorgóorlu ba lépp loo xam ne indi nañ ko fi bu bu ne mu faw xalool ci barkeb Cheikhul Khadim kon ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen jaajëfal waaye euh, àndal ci caméra ci euh, euh, caméra bi muy Argentine bi ci kilifteef Sëñ Góora ak waa Lamp Fall ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziyaare kon xam naa dañuy gàttal fii rek bañ mu gudd ñoo ngi leen di nuyu baax di leen ziyaare jox addee ji din jébbal sëñ bi mu ngi nekk 3 millions 829 mille 3 millions 829 mille kon loolu mooy addee ji nga xamante ne moo bàyyi ko Touba Argentine ci mboolem taalibe yi ak fa nekk yëpp jëmoon si ci sëriñ bi kon ñoo ngi ñaan yàlla sunu borom daje ci waqt yi xawaa ijël la si na daamu fi xidmati wa hab lahum maaraam barkeb sëriñ Touba kon ñu jox sëñ Modou Faye kàddu bi waaw ah, sëñ daam asalaamaaleykum ah wax ji kay mat na sëkk moom mat na sëkk vraiment macha allah eh, wax ji yéeme na tegu na ci yoon maañu sant yàlla sant yonent bi sant Serigne Touba bi nga xam ne moom lañ yàggal àdduna ak sant suñu jëwriñ ñi nga xam ne ñoo ñu liggéeyloo liggéey bon liggéey ko ba andi ko fii eh, sant yàlla bu baax di leen sant jiite sant bi seen Yankoobu Géey ak suñu asan mi nga xam ne moo jiite daara Baye Fall bi comme ni nga ko waxee rek ndax addee ji addee maanaam mbooloo bu Argentine mépp la ñu ngi sant bu baax nag suñu daam ñu ngi sant suñu mose ñu ngi sant bu baax baax di ñaan yàlla suñu borom daw ñu taw feex ba lépp loo xam ne yéen nañ ko ci addi ji suñu boom defal na ko ci di soññ maanaam mboolee mbooloo nga xam ne ñu nga ci Argentine nga xam ne mbooloo mu ëpp mi doole amu fa mbooloo mu gën a réy mii amu fa kon nañ ci jàpp te góorgóorlu ci def lépp loo xam ne mën nañ ko ñu def ko ci ak lu ñu mënut ndax fii lii yëpp moo fa desati lii yëpp moo fa desati kon nañ sant yàlla bu baax te gën a góorgóorlu te sant Sëriñ Tuubaa bu baax nag barke sëñ Tuubaa ak sa jërëjën jëf mbokk yi ñuy gërëm Serigne Cheikh Samb Serigne Gora Seck mi nga xam ne moom moo jiite liggéey bi nekk foofule ca Touba Argentine ñu koy gërëm bu baax a baax di gërëm itam Serigne Assane Baye Fall mi nga xamante ne bi euh, taxawaayam ci liggéey bi rafet na lool waaye Serigne Mour seen mi nga xam ne tey jii euh, liggéey bi itam moo ko jiite ci wàllu jébbal gi Serigne Cheikh jëmm ak mboolem fi nga xamante ne bi jaar nañ fa rek muy lu am solo muy daayira Touba Argentine bi nga xamante ne bii dara tax koo jug lu dul liggéeyal Serigne Touba fekk fu ñu mën a nekk rawatina ci réew yi sori ya loolu yaakaar naa lu am solo la. sëñ Cheikh kon ñu leen di gërëm bu baax di leen dikk daje ëllëg rek ci beneen jataay e, ci Argentine TV wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.